Abonnez-vous sur Hamalma TV ngir jëmmal Magni. mag ñi mina shaitani rajim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد خلق من نور وهو بنور mbokki jullit yi mbokk yi ginnaaw ba gën gaa rafet ci nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu li mu làmbool yépp yàlla buur yàlla jagleel ñu ko hurmat seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyoo ci chaîne bi ñu leen daan nuyoo muy xamal ma TV ci jàppandal gi Cheikh Souleymane xam naa ni ñëw ci suñu troisième partie ci waxtaan wi ñu tàmbali woon ak yéen lépp luy dellu ci rek fa zakir fa inna zikra tanfaul muminina ndax borom bi subhanahu wa fàttalante luy jariñ daf ko bëgg ci jaam bi nga xamante ni bu waxee ñu dégg ko jaam bi nga xamante ni am nañu ko jox nopp ndax fàttali du fi jóge fi jóge waaye fàttali luy jariñ loo xamante ni bu ko nopp déggee mën koo jëriñoo ndax nopp la nopp lañu fal wa te ay haa uznun waahiya kon boog yàlla bu yàlla may ñu nopp yu intelligent ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni am nañ sax benn question mais dinañu ci ñëw muy Cheikh Gora bu àndullahi dëkk bu bari taarix ba lool doon wax ci àqu wayjur ak doom doom nan la war a mel ci wayjuram mais wayjurit nan la war a mel ci doomam dinañ ci ñëwaale ndax nag waaye lu am am solo la boobu question ndax jamono jii ñu nekk wayjur sam gi mu wara sam sàmm doom te kat kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi waaw kay su boba sam gogu daf la war kay sam nak fa mu tambale yàgg na wala sori na la bëgg wax njabot gi nga wara am d'abord tanal ko yaay boko tanale bu juddoo nag nga yar ko ci diine l'islam ok nga yar ko ci diine l'islam waaye na nga ko tànnal yaay nag ndax lu ci am solo la liñ naan meen am am solo la ci doomu adam kon bu boobaa nag nga sàmm loo man ligi des nga bàyyi yàlla mais li war yow doomu aadama bi parce que yàlla dafa am épreuve bu mu soxla ci yow waaw kay dafa am épreuve bu mu soxla ci yow waaw kay da ngay dégg ñu ni la aaya bi dafa ne innama amwalukum wa awlaadukum mais fitna bu du fitna ni la comme nañ ko bëgg a kiwee nii rek dafa am épreuve bu borom bi subhanahu wa soxla ci soxna siñ la dénk lu mu soxla ci doom ji nga am ak soxna si waaw soxna bi nga takk weccante jikko sa diggante ak moom lépp lu mu manqué woon war nga koo mottalil yow lépp loo manqué woon war na la koo mottalil weccante jikko doom ji leen yàlla jox mu am lu war sa diggante ak moom waaw la la la la naka lakat yi waxoonati saxati amirul muminin dafa romb benn xaleel xale bi bi mu ko rombee ci moromam yi mu nekk xale bu yaru bu dal bu teey mu taxaw te mu ngi ci cortège bi mu ngi nañ ko indil xale bi xale bi ñëw laaj ko foo dëkk mu ne ko maa ngi dëkk ci quartier bi noo tudd mu ne ko Ahmed la tudd mu ne ko man daal gis naa la tey sopp la mu ne ko ndeysaan amiril moom ñu ne gis ma sopp ma man da tey am naa lu neex ci man waay mu ne ko bis naka tey xaritoog na ma ak yow bind carte jënne carte gis itam jox ko ni ko ba ma soxlaa nag ma seet si kolob bu mbekté ci booba ndaw liko ko may moy yar giñ ko yar dal gi tel gi machallah mais momit mu dem ci kër ga rek wax yaay ji xabar bi mu am ñëw fekk yaay ji triste lool di joy mu ne ko yaay lu xew ah borom bi day moo man lu ne mbekté mi ma am ñëw fekk sama yaay di joy mbekté ma disparaître mu ne ko waaw sa papa lañu wax ni dafa doon addu kalpé ca marché ba wala dafa doon sàcc ca marché ba ñu jàpp ko ba yóbbu nañu ko mu ni lan mu ni waaw mu ni xëy na yàlla lii la namoon mu ne ko ci lan mu ni ko amérique mu ne moo takkoog maam xarit jox na ba kàttam ni moom am naa ci pexe yaay ñu ko dé mu ko am naa ci pexe day wuti ji ba bi mu ñëwee ba ci bunti pale ba ni leen amérique mu nii laa soxla ñu ne ko i xale bu toll na ñu mu roset génnee kàttam bi ko amir bi jox ci suba ñu a ah amir bu ñu ne ku mu ko jox dañ la war nga jall mo carte ba ba ci amir bi fekk muy sest sax nak faf ñu ne ko am na ku la sedd parce que carte bi mu yor mu ngi non ndaysan bi mu bi mu génnee ya, rek muy xalé bi dafa ne ah xalé dal xalé la ya, hmm. mu ne ko du lolu de mu ne ko taxaw jog de mu ne ya mu ne ko banex ya, gi ma amone sama digganteeg yow suñu rencontre bi ñu doon waxtaan dama dem kër ga fekk fa naqar wu ko ëpp doole mu ne ko la xew mu ne ko dama àgg ci kër gi rek fekk ñu ni sama wayjur dafa def naka su dul noonu ba ñu jàpp ko miñ ki sa police bi mu ne lu mu def mu ne ah mu wax ko mu ne kon nañ ko jële ji ñu jële ji ko mu ñëw mu bëgg muy xas bàyyi xale bi nag faf juum xale bi corrigé ko mu koy xool ba mu yàgg ko ah xale ya, mu ni xale bi ya bon baay ni papa ji papa ji yaa baax doom waaye moo bon baay mu ni ko dangaa juum nag bi ni ko da nga juum mu ni ko juum ci ah, lan sa papa ngi nii def li mu ni ko de mu ni ko man damaa baax mu ni ko baax baayee tax mu tànnal ma yaay baax baayee tax mu yar ma baax baye tax nga ma gis la ngay muminina ma impressioné la ba nga bëggal ma sa bop sama baye mii moko yarma, def ci man yarma muni orienté wa ba nga gis ma sopuma sama baye nag mo baaxul baye baye moko ko yarul ba tay ji li mu diko def faay man baax baye mu ag suuf wah wallahi wax ga deug yar lo ama am solo la waaw lu ama ama am am solo la shaayir ba ne woon na yar jàng xalaat yëg sopp mébat ñee nit ki dañ ko yara lay jànge ni mu jàng lay xalaate ni mu xalaate lay ni mu soppe lay mébéte xoolal bii yar bii orientation bii defar ça veut yow baay bi dafa am lu la war xam nga moom baayam yaru ko waaye moom mi ngi yar yar na njabootam fii ne sàgg sàggane na ko ba am na lu mu tàmm wala nangam waaye moom mi ngi fexe lu mu man pour yar doomam ba doomam lu mel ni mu war a mel léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba xale ba ñëwee ni ko sama baay dama ko lebal sama xaalis soxla ko di ko ko laaj mu gàntal ma rek bu su nekk ma ci kii mu ne ko anta yi li abdi mu ne ko yàq sa alal yëpp sa baay leen moom xale ak digganteem ak woy juróom mag ñi dañ la daan wax ne la nen la ak xeer nen la ak xeer waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy dëgër dëgër dëgër ak yàlla li mu def ni képp ku suppul yonent bi bëgguloo ko wala bokkoo ci diine bokkuloo ci moom laa tajidu xawan billahi wal yawmal axir yuadduna man wa rasula wala kan wa abaahu aw abnaahu keroog bi aaya bay wàcc ci xare ba nit janoog bàyyam ñaari yoon ñett yoon mu dagg bopp ba ko yonent bi ñu ko ku la soppul bokkoo yonent bi keroog triste na ndax doomu dagg baatu baay aay bi ñëw waaw kon ku soppul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku bokkul ci diineel islaam xare moo waral loola am xare moo waral loola am waaye nga am sa baay muy jullit sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ni mënumaa def ak moom nga ni mënumaa def ak moom xoolaatal sa bopp alquran ginnaaw borom bi subhanahu wa taala ñoo royloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nit nag rafetal leen jëmale ci seen i wayjur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na julli ca waxtu doye ga mu am lu mu ca teg rafetal jëmale ci say wayjur lu mu ca teg xare fi sabilillahi kon fonk way jur beneen affaire la léegi nag da nga fi bàyyi way mu mel ni mu war a nga bàyyi ko fi fonkuloo ko joxoo ko cëram jox bàyyi jàmbur fonkeel ga jox ko cër fu mu tegu fu mu tegu way jur yi mu ñu góor mu ñu jigéen ak fi yaay jaar ak yow fi bàyyi jaar ak yow léegi nag li ma gën a jaaxal mooy tey ñi seen papa yi gën a sonn ci ñoom di leen fayal seen jàng di leen toppatoo surtout ñu jàng wàllu nasaraan daj ci ñoom lu ne ëllëg dañuy commencé tekki am liggéey daanaka ñoom ñooy takk jëkkër wuti ndeysaan demu jëli appartement la seen bàyyi doon daj ci ñoom yépp naax saay am na ci yoo xam nag ci parents yi la parce que nit da nga koy wutal éducation des bases bu l'islam ay boo ko fii sa papa rek mën na laa toroxal ëllëg waaw kon doom dafa war a jox cër wayjur ba mu mat sëkk waaye it wayjur it njaboot gi dañ ko war a sàmm jaarale leen fañ leen wala jaarale orienté leen uuf leen tette leen ku ci nekk dafa am part bu la war ci sa diggante ak sa nawle nawle laa wax de doom dafa am nawlu wante waaw parce que dañ laa juróon yewit am fuñ la jaarale ba nga xëy lii dal yewit doom dafa am foo war a taxawu bàyyi parce que ëllëg ñaan nga yàlla sa doom te taxawu la fa boo bàyyee xel loolu rek lu bara yomb ci yow boo bàyyee xel loolu ni lu ma leble ci lu baax ñu fay ma ko lu ma leble ci lu bon ñu fay ma ko rek rek rek rek rek mën naa baax di ko bàyyi xel lu am am solo la bàyyi xel ni que lu ma leble ci lu baax des na ma ko fay waaw ndax waaja nee nañ ba mu xëy xëy jàpp bàyyi ba di ko diri di yóbbu ba romb fa mu yemoon ak bàyyam dafa ne ko ah fii nag laa yemoon ak sama bàyyi te yow yaa ngi koy romb waaw kon ñu bàyyi ko xel way jur na bàyyi xel njaboot gi dafa am lu yàlla soxla ci sàmm gi dafa am lu yàlla soxla ci orienté bi dafa am lu yàlla soxla dem na ba yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni ki am njaboot rawatina bu jigéen yar ko fa nga ko war a yare orienté ko ba xëy mayee ko mu sëy yàlla mën na ci dëgg nga am pastel ca aljanna ca loolu nga def waaw ñu bàyyi xel ni àqu way nag ñu ndaw ñi nañu bàyyi xel ñu way jur yi nañu moytandiku seen àq nañu moytandiku seen àq nañu dañ leen di bégal lu ñu man ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam kat jàng ngeen xissa ba ka nga xamante ne yàlla dafa dogaloon mu dem ba toll ci sukuraat te mënul wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñu bëgg mu wax ko mënu ko wax bañ ko waxee yonente bi mu leen xaa dafa toon way juróom dafa tànn xol way juróom Nah, waaye ba yonent bi nee neen dajale matt ak yooyu taal ko parce que ya kat bu faatoo te yaa ji jégalu ko fa la jëme ji rek aqu mbiral ñëw mu jégal ko mu ko jégal ji rek la wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ruuga dem kon yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax léegi ci njàmbaas mooy yàqu-yàqu jamono rawatina ci wàllu politique nit ñi nañu xàmme nañu kenn ku ci nekk ak koo mën a faral ak ku mën a doon bul xool sa sa intérêt personnel xoolal intérêt réew mais intérêt personnel amul njëriñ ci fànn yëpp nag ci fànn yëpp ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ci réew mii ñu nekk wàllu ngóor jigéen wàllu franc-maçonnerie télévision yi série yi ñuy teg léegi yiñ ci jàllale di ko lancé waale xale yi di ko teg bët ci wàllu solo parce que li ñi bëgg war lépp ci télévision yi série lañ koy jàllale de dinañu frais ay milliers yu dul jeex ci série yi parce que message yi ñi bëgg jàllale ci lañ koy jàllale nga gis ku yëkkati tuba yëpp ay kapot wadd ci ngeen baal ba publicité la xale bi gis ko ni lii lan la ñu wax ko la lu mu doon waaw nga gis ko wax na la man de péril laay jël ñu laal di et cetera et cetera façon solo yi ñuy solo façon signe franc-maçon façon signe góor jigéen ñu bare bare ci sketch yi ñuy dawal ci réew mu mel ni Sénégal dinañ ci gën a la nañ ci bàyyi xel yàqu-yàqu jamono yi nañ ci bàyyi xel te kët ñu ngi koy jàll ci réseaux sociaux yi di ko jàll ci télévision yi te kenn mënu ci dara kon day bu ñu bëggee sàmm dañ sonn ndax la benn góor ñu woon léegi dañ lay indil pour nga njaaloo ñu indil ko léegi télévision mu yomb la lool waaw yooyu yëpp dinañ ci gën a yaatalaat waaw kon cheikh question bi dugalaal nañ ko ci biir ñu ngi nuyuwaat ñëpp di jégaluwaat ñëpp di baaluwaat ñëpp ak di baalaat ñëpp ak seen bokkum taalibe la Serigne Maodo Malick Gueye jëween batar wasalaamu wa taala wa